assalamu mbokk internautes yi ñoo ngi leen nuyu di leen ziar di wax képp kuy gan e, ci scène bi ñoo lay ñaan nga abonné vidéo bu ñu rek nga gis di liker commenter également te di partager vidéo c'est très important mbokk internet yi e, dañuy wax ci ki nga xamante ne mooy e, Filippo Mané Filippo Mané nag italien la d'origine sénégalaise Eh, boo xamante ne aujourd'hui mën naa wax Sénégal ñàkk na ko eh, démb defoon na vidéo wax leen que ne Cher Sénégal ñàkk na ko eh, parce que actuellement course Italie bi dafay woo woon lu tolloog 69 jours pour def estage ngir waajal qualification euro 2024 et tout ça donc ay xale fa daanaka la woo ku ne xam na ne équipe nationale Italie instant bi dañuy defaraat seen équipe bi et tout ça donc Filippo Mané ak Cher Ndour yëpp. Euh, Roberto Mancini coach de Italie one en stage donc mon une nouvelle boo je pense que nous avons neex ben sénégalais également Nous euh, avons donc une nouvelle bu en tout cas Euh, équipe nationale bu Sénégal parce que ñaar ñi ñëpp ay joueurs euh, d'avenir lañ donc Filippo Mané nag euh, defoon naa ci moom découverte tout ça wax ci moom moom mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci équipe bu club bi di Dortmund Dortmund nag ren ji la signé contrat professionnel am ba 2026 mais mi ngi football ba léegi ci équipe équipe U19 bu Dortmund saison bi fa daanaka bokk na ci joueurs yi nga xamante ne ñoo gën a baax ci équipe Dortmund U19 bi parce que football na ci use League bi muy Ligue des champions xale yi ak euh, championnat U19 bu bu bu bu Bundesliga muy Allemagne ma ngi fi football dafa def euh, ay ay ay performance yu am solo moom nag mu doon ab défenseur central boo xam ne dafa polyvalent mën naa jouer ci côté yi euh, vraiment damay wax encore une fois Sénégal ñàkkaar na benn talent Sénégal ñàkkaar na benn crack boo xamante ne mën nañoo apporter lu bari à l'avenir mais c'est comme ça comme que fédération bi à chaque fois bu waree bu gisee xale yi eh, du dem ceytu leen donc dafa dafa dañ koy ñàkk parce que Italie dañoo jóg ngir woo leen am ci ñoom yaakaar et que nañ waxante dëgg li fi nekk rek mais ku ci équipe nationale bu Italie jóg wala doo lànk parce que Italie c'est l'une des plus grandes nations du football au monde mais encore une fois damay ñaaxaat suñu fédération bi rek. donc ak dirigeant yi et tout ça pour ñu jéem a dem xool boy yi andi leen parce que équipe nationale bu Sénégal foofu la toll euh, li ñuy wax naan football xale même si sax expérience baax na mais football moom vraiment jamono ji fi mu toll xale moo koy def gis nañ équipe nationale bu bu bu bu Espagne ay Pedri ay Gavi et tout ça Maroc boo xoolee am nañ ay boy kii nu mu Argentine France donc euh, pour vous dire que football aujourd'hui foofu la toll équipe nationale loolu la ñuy xëccoo dañuy dem gis ay ay jours yoo xamante ne vraiment am nañ originaire feneen mais dañuy dem jéem leen a jéem leen a xëcc indi leen seen équipe nationale mais Sénégal foofu la soo xaw a sooxee même si que sax année yi passé ñi def liggéey yu am solo mais voilà quoi ñàkk nañ leen et je pense que man ñàkk nañ leen même si que sax footballaguñ benn match officiel mais ñàkk nañ leen loolu laa mën a jàpp parce que ay sang bii nii comme que Roberto Mancini gis na leen gis seen talent ba woo leen stage je pense que ne dañu xaaraat même sax bu leen woowu ci yeneen match yu jëm dañ jéem a xaaraat def ay performance ngir ñu woowaat leen mbokk yi di doon euh, vidéo bi laa leen andi loon donc euh, fi laay yemale ngeen wéy leen di like wéy leen di commenter di partager jaa ngeen jëf